asalaamaaleykum waa Sénégal ak waa diaspora daleen na jàmm ci Aja News point info ñu dëgtal leen li gën a fës ci yëglekaay njiiti réew mi président Macky Sall ak sport maanaam tàggat yaram xëy na fàng ci xëtu yëglekaay yëpp libération di ñu xamal ni ki Macky Sall ak i ñoñam dañoo tëji woon seen biir doon fay amal waxtaan ci lu kenn yëgul te di ci dolli ni moom koor Mariam Faye Sall ma ngay dëggal Moustapha Niass ba tey te di ko dooleel AFP nga xam ne Moustapha Niass moo ne ca bopp ba ñu ngi ci libération yëglekaay muy wax ci candidature Makhtar Diop ca BAD banque africaine de développement journal bi ne Sénégal da ciy dellu gannaaw journal bi di grand place nag moom ñu xamal ni ñenn ci ay député ñu ngay laaj Moustapha Diakhaté ci bopp assemblée nationale naam sax day benn bis dong nga ci des ngir ñu xam kuy jiite assemblée nationale coppite boobu nar am ci assemblée nationale day indi na coow lu baree bari waaw coow lu bari sax ba ci biir présidence de la république groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar te Moustapha Diakhaté jiite ko day ñoo doon coowoo seen biir kenn mësta gis journal bi di grand place day moom nee na député day laaj candidature Moustapha Diakhaté loolu yeewoo yëf ya ba sax dajeek ñaari kuréel yooyu laata muy amal tukkeem ga le populaire di am jàngat ci lu njiitu réew mi wax ba naan maanaam bëggul kenn ku ko jox ay ndogal ndax moom mooy koy dogal le quotidien xëy di ñu xamal ni Macky day daa jaay Maître Wade waa CREI le quotidien ba tey yëglekaay bi di ñu xamal ni Macky nga yeewoo groupe parlementaire yi ñu ànd ak yar ak teggin ca ndaje ga mu amaloon ak député yi président yemu ca ndax dëggal na kóolute gu mu am ci Moustapha Niass ci bopp assemblée nationale ñu des ak ci le quotidien ba tey nee alliance pour la république APR moom day ci waxtu yi ñuy wax yéen de ci mission commando la toll ngir moom Dakar nga xamante ne da koo ñàkkoon ci élection locale juin ñu weesu coalition yu Benno Bokk Yaakaar jiite nag yëngu nañu lool ci mbiru mouvance présidentielle waa coalition Macky 2012 ñoom taluñu leen dul dooleel boobule coalition Walfadjri dikk ci procès Karim Wade ma ñuy tuumal ni daal làq alal ju leewul bu justice toppee bàyyim Karim Wade ga di Abdoulaye Wade moom du ci bañ dara Macky Sall Kor Mariam Faydé mooy wax loolu laas di ñu xamal ni Macky Sall paaka ñaari boor la ci mbirum candidature Mactar Diop ca BAD Banque africaine de développement journal bi di Le Soleil moom ma nga yeewoo tey ca Burkina di weddi ni Macky Sall daa ànd ak candidature Blaise Compaoré addu yooyu di bàyyeekoo ci ministre bi di Makhtar Ndiaye di ministre ma ñu dénk wàllum bitim réew ñu jeexale ak yéen ci wàllum tàggat yaram Mouhamed Diame nga xam ne mooy capitaine u gaynde yi mu ngay wax ni tunisien yi mënuñoo def lu dul supporters ci wàllu sport la ñuy des ak yéen ba tey le populaire nee na CAN 2015 Tunisie Sénégal Moussa Sow Salif Sané ak Kara Mbodj wóorul nguur gi moom jox na Lions yi avion bu toll ak 100 ci suñu koppar pour gaynde yi presse tunisien moom ma ngay jëfal bu baax a baax arbitre gabonais bi ndax bu dul woon moom nag ah mu daal di ñaaw akaaf nee nañu déet ci aj kaan gu leen waa Maroc ñaanoon jaay ngeen jëf ci ànd yi ngeen ànd ak aja news point info